promis si c'est prêt de l'autre côté tonton Mac est-ce qu'on peut s'écouter euh, li ñi euh, euh, Fada Freddy defal vendredi ci guddi night show la woon c'était magnifique avec sa belle voix il a essayé de euh, faire un peu du ngéwél genre traditionnel indi woy woo xam ni ñi ko xam dëgg xam nañu ne woyu ndaanaan dëgg la ñu déglu ko juste après on se retrouve pour la suite wuy ma sillo ma jigéen njaay jigéenu gaaw kamu ko yaaya ma sillo ma jigéen njaay jigéenu gaaw kamu ko yaaya ma sillo ma jigéen njaay jigéenu gaaw kamu ko yaaya ma sillo ma jigéen njaay jigéenu gaaw kamu ko yaaya aduna bi boo fi nekk wa fi nekk waaw yu war ngaa dégg daaj wuy ma siloo ma jigéen jaay jigéenu kaaru kambu ko yaay ma siloo ma jigéen jaay jigéenu kaaru kambu ko yaay aliye aliye ali, bu ci wàcc saw ànd def nga aw xay ànd boo yéeg mu toj daal boo jaaru fay oh ma siloo ma jigéen jaay jigéenu gaal jigéen njaay jigéenu gaalu masilo ma jigéen njaay jigéenu gaalu kamb ko yaay masilo ma jigéen yaay jigéenu gaalu wali ko yaay asilo ma jigéen yaay ñu ngi la ma ni ko yaay. lu muy wax xaw ma ma jigéen yaay. ñu ngi ma jigéen yaay. yaay kamu ko yaay kamu ko yaay da nga am chef de poule. toppal fu mu toobat. ndeysaan Mado may ko mouchoir a ngi mouchoir. waaye rek lay def yaram yëpp melu ni jigéenu quelque chose. wallaahi. waaw sekk wayal xottil. mën nga xam sa cosaan. mbokk yeeg saa rek. xam sa cosaan dafa baax. ewa. adduna bi boo fi nekk waaw. waaw xotil sek xotil. waaw. yowoon ngaa dégg daal. as góor day dégg daaj bu bëggee texe demal. ma si loolu ma si loolu ma naa màgg naa. te sa bopp dëgg la eh, màgg naa. màgg naa màgg naa. daaw bu ci wàcc saw ànd def nga aw xay. mani boo demee ca ànd ba fekk fa borom ànd ba toog. ànd boo yeeg mu toj daal boo jaarul fay. déggal foofu. oh ma siloo. ma jigéen jaay. mooy Sénégal moo sa bàyyi. jigéen jaay. ma ni ko yaay. gars yi xam nañ ko de. kii bés bu ñu yeewale émotion bu bari fi am. ma jigéen njaay Masilo ma jigéen njaay. Gisu njaay kam ni ko njaay. <laughs> Masilo. yow eh réveille-toi. it's over neex laisse-moi me concentrer. rien que dafay joxe chair de poule quand même. Ouais. c'est une belle chanson ah, ah. ah oui ah. ah waaw neex na am na ndeysaan. qui mettra ça ci seen album. Euh, non on l'exige ah voilà les fans là et euh, c'était c'était une création euh, night show. c'est génial donc way la bu mu defoon extrait pour night show bi night show faut le rappeler teranga dina bët nag kuy xalam di ca jaay barke bi yaay ah. borom. vendredi ba vendredi lay am après journal minuit bi. ku ko tekki dof la. Ah. ah boo boo dëgërul dëgg doo ko fekkee. <laughs> dem nga tëdd avant. donc mm. <laughs> obligé de bien tenir les vendredis soirs euh, pour mën a euh, fekkee sa sama jotaay mm-hmm. boobu nga xam ni euh, on ne reçoit pas n'importe quel artiste. dans cette émission donc mm-hmm. vendredi dernier mm-hmm. c'était Daara J c'est ce qu'il ne fallait pas louper aussi ci suñu ay programme comme nag sama yëf la te. maa ngi ciy wax. Mm-hmm. dina am yeneen extrait. voilà yu ñuy wane tey <laughs> euh, def faralaate night show. déedéet kuy wax rek. Ah, neex na neex na neex na neex na neex on écoutera on peut-être euh, si tonton Mac le permet